waaw tey liñ ci fere ñun buñ toogoon fii di ko wax tamit amaana duñ fi jógee parce que tamit liñ ci fere bari na bari boo xamante ne tey jii nii mënuñu toog fii sax di ko évaluer parce que ku ne xam na ne làmb dafa metti dañ lay fay luñ lépp luñ la fay di nga ci def lu ko ëpp rawatina combat boo xamante ne at la durée mu metti trop liñ ci def moom mënuñu toog fii di ko wax metti na nag metti na torop parce que tamit jël nañ am nañ amee nañ si ay bor yoo xamante ni fi mu ne xam nga amaana yaakaaroon nañ la 15 bi lañ yaakaaroon mu jàll sax pour ñu mën ko fay wala dara loolu bokk na aussi tamit li ñu gën a empêché kon dañ dem ñu jàpp tamit euh, euh, li am nii day gën a metti parce que boo xoolee tey ñu ni dem ba des ay 15 jours ci ay bor yoo xamante ni métti na métti waaye boo xamante ni yaakaaroo lu làmb ji jeex nga nga nga kii ko ñu ñu ñu annulé waat làmb ji puusaat ko tamit jàpp naa ne tamit day gën a métti yee noonu la demee moo tax métti na daal fu métti yem daal mën naa ne foofu la tàmbalee lu métti waaw CNG bi fi jóge CNG bi fi nekkoon différence bi bari na différence bi moom daanaka ñëpp xam nañ ko parce que boo xoolee tey jii nii xam nga pour man changement bi taxoon ñu changé CNG bi teg fi beneen CNG gisaguñ ko quoi gisaguñ ko ndax amaana tey jii Alioune Sarr sax bi fi nekk amaana ni ñu gisee woon suñu bopp par rapport ak bi fi jógee sa waxtaan wax dëgg ca la quoi kon changement bi ñu def tamit pour man servirul dara quoi changement bi amul dara lu mu servir différence bi bëri na boo xoolee sax da nga combat bi passé bi nga doon wax ñu waroon bëri dimanche ci ëllëg si waaw ñu waroon bëri le vingt cinq boo xoolee loolu mën naa ne dëgg la métti na mais erreur CNG la aussi tamit parce que promoteur mënul tëggal làmbam tamit xam nga ba def lépp lu muy def fay ay frais d'organisation fay ay sécurité fay lépp joxe ay reliquats am ak lépp xam nga ba ci jour bi xamul sax ndax làmb dañ koy rapporté loolu pour man faute CNG la quoi a ministre des sports am na ci part de responsabilité parce que moom moo yor sport bi kon sport bu taxawee rek ci moom la bu doxee ci moom la yee am na ci part de responsabilité parce que tamit ñun mooy li ma wax rek ñun dañu war a jàppale parce que gars yi dañoo sonn jeunes yi sonn parce que tey boo xoolee ministre de sport moom làmb ji sport bi moo ci teewal président Macky Sall kon tey jii nii lépp loo xamante ne tey jii ñoom désiré nañ ko ci nguur gi rek pour pour ñun bu ñu dara lu ñuy wax wala lu ñuy joote si moom lañ koy jooytoo si moom lañ ko war waxee te moom amaana jàpp naa ne xam na li ñu métti yëpp kenn gënu koo xam xam na lépp nu mu demee waaw kon tamit beneen sant tamit moom benn sant dañ koy jox toor ci benn côté waaw parce que lem nii tamit dafa métti quoi waaw ñàkk jox làmb cër mi ngi basé wu ci ñi CNG bi CNG bi nga xamante ne tey jii nii ñoom lañ fi teg mais ba tey amul dara loo xamante ne tey jii nii ñoom service nañ ko làmb du dara waaw promoteur bi déggante nañ déggante nañ mais waxuñu sax lu jëm si kii bi dañoo déggante rek ku ne xam li li maanaam mu xamal ñu li am foofu lañ ci toll déggante nañ mu xamal ñu li am décision bi nga xamante ni moom la gars yi jël si làmb xam nga bi mu ko waxee tamit ñun suñu wax ak promoteur mënul sori parce ñoo ñoom ñoo yor wàllu woowu amaana lenn lañ ñu xamal nañu carrément làmb ji nii yi ñoo si war a wax loolu dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo si war a wax ak promoteurs yi xëy na peut être ñoom ñu déggante seeg promoteurs yi wala ñu wax seeg ñoom mais ñun promoteurs yi foofu la ñu moom ñoom ñoo siy gën a dee bëri ndoy moom làmb bu yàqoo wala mu métti ñoom ñoo si gën dee parce que tamit boo xoolee tey jii nii VIP yi xam comme ni ñu wax rek ñoom peut-être li ñu am am nañ ko ba pare coono bi ñu dalal mbëri ndaw yi ak li ñu siy daj dëgg ñoom duñ ko daj loolu moo tax benn sant tamit xam nga ñoom war nañuy bàyyi xel loolu ko war nañuy bàyyi xel aussi tamit ñoom ay mbëri ndaw lañu woon parce que tamit pour man lii nii ñoom ñoo ko waroon njëkkee te pour man du nii sax lañ ko waroon wootee Gris Bordeaux moom mooy président en ñu koy nuyu au pour man li mu waroon def mooy wootee mbër yëpp ñu dajaloo arène nationale pour man du woon loo xamante ni moom da koy def sax moom kese moom dafa waroon woo képp koo xamante ni mbër nga da ngay takk nga mu woote ñu dajaloo arène nationale mais yaay ñëw ku ci nekk nga mu ji di wax li nga xamante ni moo naqari ñëpp xam nga mu doon benn wax boobaa yii nii yëpp du am keneen du woote conférence de presse keneen du woote ay point de presse keneen du fi waxaat di gën di wax dara parce que non woote bi Gris Bordeaux wax jàpp ni mënoon na mënoon gën a côté bi ñu ci gisee suñu boobu mooy wax na kaasal kaas na ci làmb kaasal na mbëri côté boobu dañ ciy d'accord dañ ciy ànd parce que ñun la kaasal ñun ñëpp la kaasal surtout ñun mbëri ndaw yi nga xam ne amaguñ ci làmb dara kon loolu noonu tey jii dañ ciy gis suñu bopp ñun ñëpp mais dañ ne tey jii mënoon na gën a organiser ni mu doon gën a organiser mooy tey ñu woote woo mbër yëpp tey jii nii képp kuy mbër ñu woo la arène nationale joxoon dafa rendez-vous ñu dajoo arène nationale woo presse bi ñu ñëw ñu jàkkaarloog presse bi wax fa li ñu naqari boobaa nga xamante ni du doon kenn nit du doon ñaari nit képp kuy mbër laa la dañ la woo di nga fa teg sa tànk di nga ñëw te boo ñëwee boobaa moom mi nga te ne mooy président des lutteurs en activité bu génnee wax rek dina waxee ci kàddu mbër yëpp boobaa benn wax lay doon te foog naa ni wax boobu noonu moo doon ëpp solo moo doon ëpp sens moo doon ëpp doole ndax boobaa bu ko defoon tey jii wala bu ko defee amaana tey jii nii liñ bëgg mën nañ koo am ci nu mu gën a gaawee waaw am état wu Sénégal bu mu ñu làmb moom gars yi bu ko dee wax moom bu koy wax moom guddi yuñ toll moom dañ ciy ànd ak yow parce que boo xoolee tey jii nii affaire yi ni mu déroulé nii boo xoolee sport làmb ji rek lañ ci njëkk a bloqué boo xoolee daaw bi mbas mi njëkkee am làmb ji dañ ko bloqué déggoo benn mbër bu aalu déggoo kenn ko andi problème dem nañ ba dernière minute ñu dédommagé artistes yëpp ku ci nekk ñu jox lay ndàmpaay am lu ñu jox te gënuñu ko yeeyoo mbër yi parce que mbër yi ay porteur de voix lañ nekk ay jeunes nekk ay xale tey mbër bu jóg tey ji ay millions de personnes ñoo lay topp jeunesse bi ñëpp lay topp xam nga am si yow yaakaar am pour wax leen ñu def ñu def ñu bàyyi ñu bàyyi kon tey ji ñu mel noonu tey ji ni état war a dooleel mais nekkul ne rek tey jii ay mbër lañ rek xam nga dañu war a seetaan tamit dafa xaw a métti dafa xaw a ñaaw pour man quoi parce que tamit boo xoolee cër bi mbër yi am néew na artistes yu am new na star yu ko am parce que tey mbër bu romboon fii nii tey jii xam nga fii day fees dell par rapport a tey benn joueur wala dara kon gars yi ni ñuy bàyyi yooyu noonu xel quoi am na lu ñu mën ci jeunesse bi li ñu mën ci jeunesse bi nag nañu nangul lool noonu xam ne maanaam ñii am na lu ñu mën ci jeunesse bi ñu dooleel ñu jàppale ñun nag amuñu lu dul làmb amuñu benn métier bu dul làmb làmb si lañ yaakaar kon nañ ñu jàppale si li nga xamante ni si lañ nekk parce que dafa métti xam nga nekk ndaw bàyyi sa lépp ndax làmb di préparer sa combat ba mu des ay 15 jours perte si xaaj bu bëree bëree bëri xam nga ñu rapporté ko ci loo xamante ni xam nga doo comprendre parce que loo xam moo ci desoon pour man mënoon nañu ko may boo xoolee combat yi yëpp ci mois de août bi la mënoon nañu may ba mois bi jàll xam nga ñu soog a après décision bu ñuy jël sax ñu jël ko parce que boo xoolee mbëri dañuy sensibiliser feebar bi même daaw mbëri def nañ ay ay aide génne seen xaalis jàppale ci état bi xam nga yooyu foog gars yi di wax quoi mbëri tooguñu rek croiser les bras waa gis nga loolu bokk na si lu gën bokk na si lu gën a métti li gën a métti ñuy woote di kaas boo xoolee boîte yi day fees dell rassemblement yi foofu la ëppee xam nga kon tey yooyu yëpp boo ko nangoo tey jii ba pare xam nga ne làmb du am xam nga day am lu muy nduru quoi xëy na day am lu muy nduru moo tax benn côté tamit ci CNG bi côté boobu dañ leen balaame parce que ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu ñoom ñooy CNG bi waroon nañ kaas ci loolu war nañ taxaw ci loolu mais gisuñu seen taxawaay ci côté boobu noonu léegi nag comme gisuñu seen taxawaay ci côté boobu ñun ñi ne nag ñun ñooy acteurs yi ñoo ñoo koy ñun ñooy wax li nga xamante ni moo ñu metti ñu ko mën a kaase nag mooy nii rek wax ci média yi ñu gars yi dégguñu xam ni carrément am nañ lu ñu naqare te instant bi war nañu jàppale li ñuy jàppale nag mooy ñu woo promoteurs yi woo yi nga xamante ne ñoo tëgg làmb yi ñu jàppale leen dédommagé am lu leen jox am a préparer waat xam nga presque ay millions lépp ay xaalis jàmbur lu ne nga jël ko def ko ci ba pare xam nga mu demaat ba des ay 15 jours ñu reporté waat combat bi combat tey jii nii leen leer yàlla buñ ci yokkaatoon benn un mois ci ci ci kanam nga bëgg a génnee saraxu mbuusu ndox doo ko mën a génnee ndax dafa metti ndax ñi ngay leb da ngay dem ba doodoo am koo leb da ngay dem ba doodoo am koo laaj xam nga loolu dafa metti quoi waaw ñun waxuñu ñun budul ñun damaa jëlee la ñun li ñu ci def rek mais boo xoolee yenn gars yi nga xam ne dañ lay bëgg te yàlla tax ak yenn supporter rek li ñu ciy finance ak li ñu ciy def rek yow boo ko doon calculer sax yow da nga naan sawaay mooy loolu noonu doo xam nu mu toll xam nga te ñooñu dara warlu ko ñurul ñi nga xam seen mbër lañ am mooy li moo sànq rek ñun ay porteur de voix am nañ cër ci jeunesse bi cër boobu noonu jëm jeunesse bi moo tax waral tey jii nii ñun lu mu métti métti métti métti métti ba ci sama voix bi paas gars yi ñooy dajale seen ay junni ñooy dajale seen ay 1000 francs ñooy dajale seen ay 2000 bés bu yàlla sax dañuy jóge entraînement ñu ko 5000 jolo pour nga reer ci wala pour nga lekk ci xam nga te dañuy bàyyi seen bopp parce que amaana tey jii nii yow yaa tane fuuf mais da ngay xam ne ñii am nañ si yow yéene boo xamante ne buñ jógoon pour def lu ñaaw wala def na ko lu noonu boo leen ne xee dañuy toog kon ñu mel noonu tey jii ci réew état bi pour man daf war nañ taxaw bu baax a baax a baax a baax a baax surtout période bii ñu toll nga xam ne ne mbas mi dafa laal lu bëree baree baree bëri dëkk bi metti na bi dëgër na xam nga kon am na yoo xamante ne suñ ko defee pour man fit fitna la jur quoi ci jeunesse bi parce que jeunesse bi dem nañ ba sonn te sonn nañ sonn boo xamante ne saa bu ñu fippoo du ñu neex a téye wax naa ko keneen waaye bu ñu fippoo du ñu neex a téye te ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi balaa yooyu di am na état bi nañu gëstu jàppale promoteurs yi woo promoteurs yi si nu mu gën a gaayee ku ci nekk mu xool lu muy teg sa loxo promoteur yi xoolaat mbëri ku ci nekk nu muy lay dolilee nga mën a préparer sa combat ñu jàppal ñu ay date si nu mu gën ñu bëri parce que làmb la ñu amuñu leneen lu dul làmb loolu moom loolu loolu loolu noonu loolu noonu kese mooy suñu ndax su ñun loolu la ñuy jooy waaw mooy li ma wax rek xam moom li ngeen gis la ñëpp gis boo gisee état bi mu weree làmb moom ngeen gis moom la ñëpp gis parce que boo xoolee ak làmb yi ni muy déroulé nii tamit loolu ku ñu ko wax ku xam ne maanaam état bi instant bi ni muy doxee nii day rey làmb mais tey loolu ñu loolu noonu loolu noonu mooy li ñu metti nag ñun loolu la ñuy kaas parce que tey loolu la kese la ñuy kaas kaas ñu leen loolu parce que ñun làmb la ñu am mooy li ma la sànq tey rey nga làmb mooy maanaam rey nga jeunesse bi parce que boo xoolee amul benn sport boo xamante ne tey jii nii li làmb di def dina ko def ci Sénégal fii làmb kese mooy am stade yi fees dell xam nga jaay ka di gis seen bopp ñëpp gis seen bopp du football bi du du du beneen sport du handball bi du basket bi du dara làmb kese moo fi am stade yi fees dell dell dell ba ci biti kon état bi ñoom bu ñu bàyyi xel loolu noonu rek war nañ mën a gën a delluwaat ginnaaw tuuti jàppalewaat làmb xam ne làmb bu ñu fippoo tey nii wallaahi azim lu lu raw loolu mooy amaat lu raw loolu mooy amaat parce que tamit boo xoolee bëri li topp seen ginnaaw dafa bari te tey jii nii bu mbëri yi jogoon laala wax ne dañuy marché wala dara si boo yi bu ñu si toppee laala amul benn benn benn benn benn sécurité bu leen mën a téye amul sécurité bu leen mën a téye ay dee mooy xale bari ci dëkk bi rek xam nga ñiy yi ñiy jël alalu jàmbur gars yi si gën a sonn loolu na balaa ñu si agsi état bi na jàppale làmb ji moo gën quoi parce que bu jàppalee làmb jàppalewul làmb bopp seen bopp lañ jàppale parce que jàmm réew mi mooy seen jàmm ñoom mooy suñu jàmm ñu ñëpp te tey amaana tey jii nii pour jàmm réew mi am tey jii nii mooy ñu jàppale làmb parce tey jii làmb li ci nekk dëgg dëgg bu ñu fipoo wàcc si terrain bi wallahi azim mënuñu leen téye te boobaa day gën a métti rek nañ bàyyi xel loolu noonu même bu ñu bañee làmb tamit nañ nañ bu ñu même bu fekkee bëgguñu làmb tamit nañ xool ci jeunesse bi xam ne jeunesse nañ làmb te tey jeunesse bi moo leen gën a lu ñu am te tey jii nii bu ñu leen ko xañee bu ñu wàcc si terrain bi dëkk bi day gën a tàkk nañ bàyyi xel lool loolu loolu mooy la am solo waaw mais bu ñu xool ci làmb ji man du ma classe kenn man classe ma benn VIP classe ma kenn tey jii ku fi ñun ñëpp ay nit lañ dofu ñu junne jàpp ñu xam nañ lu baax xam nañ lu bon comprendre nga képp kuy làmb wala ngay wax loo xamante ni neex naa dégg dañ ciy ànd ak yow boo fi waxee yenn wax yoo xamante ni tamit déggul tamit dañuy génn taxaw wax ko xam nga loolu kese la parce que tamit Euh, mbër yu mag yi bokkuñu ak ñoom écrit bokkuñu ak ñoom dara yaa ngi dégg duñ si fëgg buntu kër kenn tamit mu ñuy may cent franc kon exemple quoi mais association bi les lutteurs en activité lañ ci def. ah man changement boobu maa ngi koy doog a yëg waaw xam nga moo tax may wax nii sax looloo tax ma ciy wax parce que tey boo xoolee boo gis gën a gis tamit moo woote conférence de presse di kaas yu mel noonu moo tax xam nga la parce que tey jii nii ñun ñii ñëpp ay lutteurs en activité lañ. parce que toll nañ foo xamante ne day nii même bu doon ñaari nit wala benn nit sax buñ leen nee def leen lii dañ koy def buñ leen nee aw leen fii dañ aw comprendre nga rawatina nag mu doon mbooloo boo xamante ne tey jii nii luñ fuñ leen awloo ñu aw fa luñ leen def loolu lañ koy def kon tey jii am na loo xamante ne tey jii nii am na loo xamante ne tey jii nii c'est normal c'est normal même bu ñu si boolewul def ñun ñu boole suñu bopp. tënku ci ci ci ci kuréel parce que tamit lu waay mën a wax moom am ngeen association. moo xam adhéré wala ñàkk adhéré. Mm. mais bu taalee fële taalam ke la jafal fee kee jafal fee est-ce que loolu dina tax njëriñ feeñ. waa li nga wax dëgg la mais tamit loolu lu ñu ciy sànni kaddu du bëri parce que boo xoolee làmb ñaari année yi la commencé am jafe-jafe kon tey jii bu fekente ni jàmm mu ngi am. làmb yàgg naa am jafe-jafe. non ñun boobu. depuis 2012 ba tey. ñun boobu ñu doo doog ay jafe-jafe ci làmb wala doon comprendre mais par exemple benn affaire am. li li li li li Balla Diouf wax li Balla Diouf wax noonu. loolu loolu loolu côté boobu dañ koy dëggal comprendre nga parce que tamit am na loo xamante ni mënoo xaar ba mu jàll nga ci soog topp di wax wala dara mais tey jii dafa am ñoo xamante ni tey jii nii pour ma loolu lool ñoom seen devoir la mooy CNG bi am na si lu si bëree bëree bëri seen part de responsabilité la mbëri soog a ñëw est-ce que comprendre nga parce que tey jii nii mbëri yàgg nañoo am lu leen métti ñuy kaas mais du sori du dem fenn boo xa amaana boo gisee tey jii nii kaas bi nii. wuteeg yeneen wax yu ñu doon waxee les points de presse bari amaana li tëj làmb ji moo tax li ñu tëj làmb ji mais làmb ji yàgg nañ seen am lu ñu metti la gi dañ seen lu am yi wax da ngay wax mais wax ji après xam nga du sori doo mais le tey jii ñu arrêté làmb ji si deux ans yi lañ ko arrêté la làmb ji commencé arrêté ndax feebar bi li ñu si gën a métti mooy yeneen activités yi bële passé sax mën nañu waa mais bii nii am na activités yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ko bàyyi mi ngi dox ñu bloqué làmb kon tey jii nii loolu noonu c'est normal waxuma ñun mbëri kese mais képp ku nekk képp kuy axlu làmb wala kuy bëgg a làmb tey jii nii da nga ci war a kaas da nga war a wax voilà dafa gën a parce que mënu ma conserver tey jii nii activité sportive yi tey jii nii làmb lañ ci làmb lañ ci njëkk a tëj lañ ci njëkk a arrêté amaana fuul bu ñu ko arrêté xëy na yàggul làmb lañ rëccu nañ ko de. rëccu ngeen ko. non yàlla moom instant yi rëccu nañ ko moom parce que tamit waaw parce que xam nga xam nga parce que tey jii nii durant deux ans yi moom la fi benn changement. Bira Kaay ma ko a xew am na ci wàll nag. waaw am nga amu mais mais dañ ko dénk am association. mais xam nga moom mooy ndawal état tey jii nii bu dee ci cadre làmb ci moom lañ mën a a a ko fi jëlee tamit lu mu métti métti métti ci Alioune Sarr nga doon wax donte tamit état bi moo ko fi teg mais ci Alioune Sarr lañ doon wax waaw mais instant bi nii gis nañu tamit changement bi dafa amul njëriñ boog maanaam changement bi dafa amul dara lu dafa benn changement amul dara amul benn njëriñ loolu moo tax ñu ñu bàyyoon fi Alioune Sarr moo gën parce que nit boo fa changé dara teg fa dara pour pour changement moo tax mais bu fekkente ni ka nga fa teg gisoo fa changement amaana sax dafa gën a dellu ginnaaw gën a yées tey kon nga bàyyoon moo gën pour man moo tax ñuy wax beneen message bi ñuy lancé tey jii nii état bi lañ koy lancé mooy ngir yàlla war a sori ñoo xam ne jeunes yi nañ ñu woo promoteurs yi jàppale leen parce que promoteurs yi dañoo leen xool lu ñu leen di jàppalee jox leen xaalis ñu xool lu ñuy jàppalee mbër yi parce que instant yi mbër yi dañoo sonn amee nañ ay bor yoratuñu dara parce que boo xoolee tey jii nii coono yi ñu daj ci combat yi nii mosuñu ko daj ci benn combat per nañ ci ay xaalis amaana tey jii sax li ñu xaw a dimbali sax mooy yenn gars yi nga xamante ne tey ñoom lañ nekkal parce que tey li ma koy wax souvent ñun amuñu ku ñu may million amuñu ku ñuy may ay ay ay deux wala trois millions ñun lépp loo xamante ne tey jii nii ñun ñoo ko am wala ñoo koy faat supporters yi la supporters yi ñooy dajale seen weccet ñooy dajale seen ay 1000 francs ñooy dajale seen ay 5000 ñooy dajale seen lépp xam nga te loolu nekk na loo xamante ni yombul président dañ di yokk sant parce que amaana tey jii nii maanaam ñoom bokk nañ si ñuy doxal làmb làmb tey jii bu demee ba agsi fii nii presse bi am na si part de responsabilité bu rëy rëy parce que ñooy fekk doonul dara ñu def la dara yaa ngi nga am sa problème wala nga am sa naqa ñu génne la casque te tey lii def nii du lu ndaw lii nii du lu ndaw la fait que presse bi ñëw ñu wax ñu ay porteurs de voix lañ jii bu ñu toogoon suñu ruq rek di wax tey jii nii kenn duñu dégg mais presse bi tey jii bu ñëwee wax ñu génnee wax woon na gars yi ñii si nguur gi bu ñu ko déggee tey dinañ xam ne carrément ñii am na lu leen naqari ñu saafara suñu jàngoro kon tey jii maanaam loolu yëpp tey jii nii mën naa ni presse am na ci part de responsabilité bu rëy kon mënuñu loolu di leen sant di leen gërëm